dafa am benn doom bu ñëwoon ci yaayam muy def classe de CM1 walla cm mu ne ko yaay yaay yaay yaay looy jooy mu ne ko man li may jooy mooy sa papa génn na àddina amul ku yor njaboot gi man doom loolu lay jooy ngir doom askan wi du ñu dimbali lu dul ku am te ñun amuñu te bàyyi bàyyiwu dara te yaa ngi nii di jàng nekk xale bu tuuti loolu moo ma jooyloo xale bi ëlbëtëku ne ko yaay dinaa la feral say rangañ yaay dinaa la feral say rangañ yaay ji ne doom amaguloo noo may ferale samay rangañ mu ne ko yaay je vais redoubler d'efforts pour jàng yaay je vais redoubler d'efforts pour liggéey pour man laa teral waaye xam nga yaay ji lan la ko wax ne ko doom lii di feral samay rangañ comme baay dem na yaaya fi nekk nan ngay ferale samay rangañ mu nekk ko da ngay góorgóorlu mu ne bu dee liggéey na liggéey bu baax pour teral ma pour sagal ma pour nit ñi man maa jox sama gët parce que su ma amul kenn du ma tontu doom ji commencé jooy mu nekk nag kàddu yi ma sama yaay waxoon kàddu yooyu laa ëlbatiku mu di ma redoubler d'effort pour ma xam ne àddina bi daal ci doom la doom bi yaay kon doom mi ngi ëlbatiku di fomp naka yaay fompal say rangañ man su ma amee yow laa jëkk a teral te kenn dutu la soxlaati dara kon fala doom ju baax day góorgóorlu day jàng jeunesse bi dama leen di pousser à ce que ku si war a jàng na nga jàng jeunesse bi dama leen di pousser à ce ku war a liggéey nanga liggéey waaye tam na nga ko teg ci yoon na nga gagné dignement